Sokane na nga gisee ñaari góor yàlla taxaw sur seen di fóonante. boo déggee ku tedd ki doon wax Cheikh Bamba nee na mujjum jamono yegg si na <laughs> mujjum jamono lañ nekk. mayaar ko mbokk internet yi déglu leen lu. boo déggee ku tedd naan. Euh. ñu naan. Cheikh Bamba nee na yarabana mujum jamono yegsi na mujum jamono mujum jamono moo nekk nii mujum jamono ngay gis ay góor yi bugg nekk jigéen mhm. ay jigéen yi bugg nekk góor mhm. mujum jamono ngay gis ñaari góor di sëy mhm. mujum jamono ngay gis ñaari jigéen mujum jamono ngay gis góor bu bugg changé sexe am jamono ngay gis jigéen bu bugg changé sexe am mujum jamono ngay gis jullit yi di xeex seen biir mujjum jamono ngay gis jullit yi du ñu ànd si dëgg. Mhm. mujjum jamono ngay gis jullit yi di dem di tooñ sunu mbokk chrétiens yi mujjum jamono ngay gis chrétiens di tooñ jullit yi lépp si mujjum jamono la. Mhm. di dooleel seytaane. Mhm. mujjum jamono ngay gis nguur bu ñu fal gëm ko jàppale ko pour mu jàppale peuple. mu ñëw war askanu peuple mooy nguuru waa APR yi. loolooy mujjum jamono. féewale tas yaakaar. boole seytaane mm-hmm. mooy yàlla du ñu wax dëgg loolooy mujjum jamono mm-hmm. mujjum jamono mooy fépp fu ñu wax yonent bi salaa salaam ñu koy jéem a tuutil te ko kenn nu ko tuutil koo koy tur bi nga xam ne boo ko noddee ñëppay bég mm-hmm. mujjum jamono mooy da ngay gis xarit ak xarit depuis booy xaalis am xamantewuñu mujjum jamono mooy indi lan gëmoo sa bopp mujjum jamono mooy nga nekk diine jullit ñu wax la xaalis nga ne gëmoo doo jullit changé religion loolu yëpp si mujjum jamono la. d'accord waaw mais tamit loolu nan nga ko gisee loolu nan nga ko gisee. góor ak góor mooy wane la Sénégal gars dañuy wax rek. Mhm. Sénégal am na yoo xam ne mënu fi am mooy lim la wax Sénégal townu peace la. Ah. Sénégal is peace country man Sénégal. Hmm. the last country you come to in the world you see mhm. mhm. boo fi ñëwee. nga ne yow da ngay a créer ay affaire góor ak fonde wala Mhm. seen tur yooyu xaw ma. borom ñaari tur yooyu. loolu mënul am si dëkk bi dëkk bi Baye dëkk Baye Niass la. Mhm. dëkk Serigne Touba la. Mhm. dëkk El Hadj la. dëkk ji Bukunta la. dëkk Cenema ci dëkk Insa ibnu Mariama la. Sénégal loolu fi am leneen luñ fiy ñoddi. dañuy feeñ parce que sunu maam yi dañoo liggéey démb fekk juddooguñu. senegal foo tourné di nga gis jàkk ñuy noddu. dëgg boo tudd ñu ngi noddu jàkk di nga gis nit ñi di julli ji. kon ba ba ñuy dee. dëgg moo fi am. ba ba ñuy dee maa ko wax tey Sénégal. Mm-hmm. mais nag képp kuy dooleel naan na ngay jéem a dooleel affaire yooyu noonu. Mm-hmm. du soo sax mais yàlla moo koy fayal boppam. parce que sunu borom dëpp na fi ay dëkk. Mm-hmm. boo xool si alxuraan dëpp na dëkk ndax affaire yooyu noonu. affaire yooyu mais su nekkul loobu yi demul ba léegi dafa dugg senegal ba non gars yi ñooy xam tax ma wax loolu loolu mm. mooy xoolal tàngal mi nii xoolal nu mu mel xoolal fii nii. loobu boobu ñuy wax amu fi. ay loobu naan. PD ak ay LGBT ay góor jigéen yooyu noonu yooyu yooyu yooyu noonu mhm. booy nañ ko fasal fii ku ko si njëkk a man ngay njëkk gis mais bu leen neexee nag naan dañ koy jéem a dooleel mhm. mais ku koy dooleel nit munoo dooleel lu dul dëgg mhm. nit doomu aadama munoo dooleel lu dul dëgg luy dëgg rek ngay dooleel muy dem muy rasulullaay mais boo doole lu dëgg du dem ay kalaat maa nga yem ak ay plaignant parce que tey boo jaaroon fi benn booy bu ñuy wax naan péede lool tali bi ñun fii doo gis booy bu booy bu rax woo rax rax lu woo sax buñ ko keppee faja ko man su ma njaabee seeb gis la sax <laughs> eh? ngay rax rax lu woo sax ma wax ak yow dëgg la exemple kon yooyu mënu fi am mm-hmm. mais nag gars yi nañu fagaru fagaru moo gën faju mm-hmm. parce que lépp suñu nguur njiit yi la rek parce que ñoom ay corrompu lañ ay complexe lañ mm-hmm. parce que tey boo demee lu toll ni ñun suñu nguur yi suñu njiit yi tey ñun ñu euh, peuple bi far leen ñu war a taxaw peuple bi. Mhm. ñu dem di déglu nasaraan yi di far si nasaraan mhm. ñoom ñoo fi waral loolu. Mhm. parce que bu dee ñoom bu dee ñu ngi julli. wala ñii ñu ngi dem église. xam nañ ne loolu amul si jullit. dañ lay rey suul la si chrétien sax nangu ko bible bi sax nanguwul loolu kon ñoom ñoo jéem a topp tubaab yi tubaab yi di leen dugal si ay géemu franc-maçonnerie parce que kuy affaire franc-maçonnerie ñëpp xam nañ ñu mu demee mais nag Sénégal ñun tolluñu franc-maçon yi di ñu manipuler. suñu njiit yi nag bu dee ñoom xaw ma dañuy jéem a ñoddi xaw ma dañuy jéem a dund. Hmm. pour business yooyu. dañuy nax seen bopp. Sénégal 18 million yëpp ay hmm. croyants lañ. dëgg la ñooy def seen sondage yooyu di fet naan ay quinze millions lii kay hmm. dañuy duul 18 millions yëpp ay croyants lañ parce que jullit ak chrétien fi am. dëgg la dëgg loolu dëgg. amul leneen temple da nga mos a gis temple góor jigéen. ah wala église góor jigéen. amul fenn kon amuñu doole. bu ñuy woote doole nañ ko def. wala budee ñoom dañ leen di ñu def ko. Mhm. ku si def ñu do ayaw ku ko si ñun ragaluñu loolu de ñun tey xoolal we born into muslim and we die into muslim sometimes we born into christian we die into christian loolu am all time my time mm-hmm. you know we born in here Senegal we know all day for Senegal <laughs> we know we are here for Senegal we don't run anything Senegal is peace country people we come do bad mm. we see kaana mooy ñun ragaluñu dara képp kuy jooma ñodd fii lu metti mm-hmm. sookaana ngay njëkk a gis mm. Senegal loolo fi am julit chrétien mhm. musulman murit mhm. layan tiijaan xaadar mhm. amul leneen amul leneen foo dem ci Sénégal loolu la ñuy dund muy sam fu mu jógee Kaamaas muy Fuuta muy Tiwaawan muy Thiès muy Touba muy Cenaba muy xaar ya fépp ci Sénégal looloo am piis jullit chrétien kon bu kenn yàq suñu Sénégal kenn mënu ko yàq